waxtaan yooyu nga xam ne ñoo ngi koy def te tuddee ko diine ak doxinu jamono bi ci mujj te ñu defoon ko jëmale woon ko ci liggéey boobu mi ngi topp di traité li ñuy wax totalitarism euh, defoon nañu xaaj bu njëkk bi mooy naka la juddoo concept bi ci boppam euh, ñan ñoo ko jot a doxal muy Lénine muy Hitler muy Pol Pot euh, ak it yan màndarga lay am nga xam ni euh, réew mu koy doxal nii lay doxee muy idéologie ci boppam bi nga xam ne dañ koy traduire en politique euh, teg ci chef bi nga xam ne moo koy doxal ni muy doonee un chef indiscutable kenn lay doon koo xam ni amul kenn kuy am sañ-sañu wuuteeg moom xalaat walla doxalin Euh, propagande bi ñuy def it mooy fu ñu toll di wane ne lii rekk mooy aw doxin mooy gisin mooy xam-xam mooy dundin la cay mujjit mooy euh, li ñuy wax répression duma gi nga xam ne moom la ñuy duma ak di ko toroxal ñi nga xam ne ànduñu ci ak di leen yóbbu ci li ñuy wax ay camp de concentration wala ay gulag boo demee Russie ngir mën leen a tàggataat ba ñu euh, nangu xalaat bi tàggatin wu metti itam woo xam ne loolu histoire wane na ni eh, ñi dund ci camp de concentration yi daj nañu lu nekk waaye eh, fiñ ci tollit ci waxtaan nga xam ni foofu la ñu bàyyee mooy moomit it wuute na ba tey ak li ñuy wax autoritarisme conservatrice loolu it gisinu politique la woon boo xam ne amoon na France ay jamono surtout eh, ci jamono yi nga xam ni ci la fa Charles de Gaulle nekk defe naa ne sax loolu ci la gaullisme juddu euh, ba tey euh, totalitarisme mën naa nekk nationaliste mën naa nekk itam impérialiste maanaam nit ki mën na ne moom idéologie nationalist la yor maanaam réew mi doomi réew mi ñoo ko war a jariñoo li am ci réew mi waa réew mi ñoo ko war a jariñoo waa réew mi nangam ak nangam waaye mu nekk idéologie totalitaire boo xam ne te loolu tam lu dangereux la ci waa réew mi gis nañu ko ci euh, ni mu demee ci euh, Hitler ak waa Allemagne gis nañu fi mu mujj itam euh, nationalisme la totalitarisme la tamit bu bu bu Russie bi it moo nekkoon boo xam ne bu impérialiste la loolu sax moo tax internationalisme communist am ba ñu bare maanaam ci ay réewu Afrique wala fenn ci àddina wala ay ay ay Fidel Castro ñu bari doon wax ne ay com ay ay communiste lañu waaye nag ci idéologie totalitaire boobu nga xam ne ci la doon dox ñoom it ci lañ daan sukkandiku di doxalee noonu ci seenum réew nga xam ne benn liberté rek lay maye mooy liberté wu euh, def li régime bi bëgg loolu doxalin woowu itam muy pensée politique moo tax. lu am solo la ci nit ki bàyyi ci xel mën nga ne man nationaliste la damay defendre sama réew dama bëgg li am ci ay xéewal ci sama réew waa réew mi di ko jariñoo doomu réew mi avant ñëpp nangam ak nangam ba ñu jàpp ne loolu mooy sa gis-gis wala sa xalaat ci wàllu politique fekk na yow waru nga bu yàgg yor nga idéologie bu dangereux bi nga xam ne mooy bu bu bu totalitarisme boobu nga xam ne am na nu nu muy doxee rek musiba lay doon sax ci askan wi nga xam ne moo tax nga jàpp ne ñoom ngay xeexal wala ñoom ngay jàppale. Euh, day nekk tamit doxalin boo xam ne parti état moo koy def euh, maanaam parti état bi dafay yor monopole lépp maanaam parti état bi mooy doxal lépp lépp ci ay loxoom lay nekk. Euh, nationalistes yi maanaam privé yi nga xam ne dañoo nekk ci réew mi euh, ñoom état bi dafay jàpp ne amatul privé amul seen lépp lu fi nekk rek moo xam doomi réew mi la moo xam euh, askan wi la ci boppam ak lépp lu lëkkaloo ak moom rek état bi dafay jàpp ne moom moo ko moom moomeelam la alalam la kenn amu ci sañ-sañ walla dogal walla gisin boo xam ne mën nga ko caa def dafay itam xañ ñi privé yi seeni alal da koy nangu boo moo tax boo xoolee Lénine dafa dem saisir lu mat trente cinq mille coffres yoo xam ne ay privé ñoo ko moomoon euh, mu daal di ciy teg loxo loolu itam bokk na ci euh, seen gis-gis euh, doom yi nga xam ne dañuy juddu ci réew mi itam réew mi daf leen di moom. moo tax boo xoolee ba ci sunu bokk sénégalais yi nga xam ne dañoo nekk ci ay réew ci Europe am fa ay doom léeg-léeg dañuy am jafe-jafe génnee xale bi wala dañuy am impératif u delloowaat xale bi waxtu sàngam ñu naan balaa assistance sociale bi di ko laaj wala yu demee noonu euh, opposant yi itam daf leen di noot daf leen di daf leen di daf leen di du leen may benn sañ-sañ wala benn àq wala benn yelleef ci gisee neneen nu wuute ak ñoom ni ñuy doxalee jël biens yi jël li ñuy wax moyen de production yëpp teg ci loxo kon euh, totalitarisme ci boppam mën nañoo wax ni euh, gis-gis la walla bëgg-bëgg ci nga noot askan bi yëpp te benn du kenn du des fenn du des lenn du des lépp dafay matale ci sag moomeel sag nooteel ak sa kilifteef te mu nekk loo xam ne ci politique lay tàmbalee ñu jaarale ko ci société bi ba mu àgg ci nit ku ne nangu kilifteef boobu ak nooteel boobu ak moomeel boobu ndax leneen lu dul loolu ñu la ko mën a may dañu lu ñuy xalaat la nag dañ koy xalaat euh, doxal ko ci wàllu politique maanaam teg ko nit ñi muy muy xeetu dundin nga xam ne dañ leen koy forcé mu nekk benn mode de vie te du leen may benn buntu wala porox ndoll ci ñàkk ànd ci loolu loolu mooy li nga xam ni mooy gis-gis bu totalitaire euh, li ñuy wax état nation yi nag nga xam ne gannaaw aristocratie yi état nation yi ñu juddu aristocratie yi moom lay wax ne mooy nguuru donnante yi ba mu jeexee ba nga xam ne léegi euh, état nation yi juddu na muy président yi ñuy fal ak devant régime yi ngay dégg rek diw falu na ba yàgg diw falu euh, te du jote ak deret ja wala juddu ba dara ñoom ñoo fi indi li ñuy wax droit de l'homme ak itam li ñuy wax classe sociale ndax état nation itam Euh, fi ñu fi ñu wuutee ak aristocratie yi mooy aristocrates yi ak clergé yi maanaam boobu nit yi diine ak nitu nguur rek daanaka ñoo meloon ni ñu am àq ak yelleef ak sañ-sañ ci lu bari ci biir Europe wala ci àddina bi euh, li tax état nation yu juddu nag xëy na complot société secrète yeeg révolution yi nga xam ne moo am ci biir Euh, boroom xam-xam yi muy écrivain yi muy peintre yi muy philosophe yi ñu ñëpp euh, mécènes yi nga xam ne mécènes juifs yi ñoo leen euh, dugal ci pensée yooyu ba ba yëf yi man a am mooy dangay xam ne boobu ñi ëpp alal ci àddina bi ëpp alal ci Europe amuñu benn àq walla benn yelleef te mooy mooy yahud yi juif yi ñoo ci ñoo ci ëppoon alal waaye amuñu àq amuñu yelleef duñu vote duñu am gis-gisu politique ñu falu ci wàllu politique loolu nag euh, daanaka moo baxal complot bi ci suuf rek ba état nation yi juddu bi ñu juddoo nag ñu définir ay charte boo xoolee France 14 euh, juillet bi ñuy feete bi ñu convoqué état généraux yi li ñu njëkk a tëral ci dogalin mooy assemblée nationale juddu ñu ne balaa ñu fiy jóge réew mi dina am constitution te constitution boobu nag moo amélioré Euh, nit ñi seen dundin waaye rawatina nag ñi nga xam ne ñoo ci ëppoon alal te amuñ ci àq ak yelleef mooy yahud yi loolu nag ñoom ba noppi itam classe sociale yi juddu mooy li ñuy wax bourgeois prolétaire ouvrier nangam ak nangam ku ci ne euh, ñë ci ci sa wàllu wërsëg ngeen daal di nekk classe sociale mooy maanaam bi bi fi waaso yi jógee waaso yu bees yi am mooy fi sa wërsëg toll ñooñu ngay méngool ab dundin ñooñu ngay dëkkal ñooñu ngay bokkal fi ngeen di course parce que xam ngeen ni loolu rek mooy bi mën a nekk ba noppi ay parti politique it am ci waaye euh, échec boobu mu mm, mm, nga xam ne wuute gi dafa am lool ndax dafa am ñu tekki lool ak ñoo xam ne dañoo sonn lool seen situation metti lool seen dundin metti lool Euh, frustration yooyu ak ak ak ak ak mettit yooyu ñoo jur li nga xam ne mooy totalitarisme totalitarisme nag léegi ñi nga xam ne ñoo jiite idéologie bi li ñuy créer rek mooy li ñuy wax lom de masses mbooloo mbooloo rek la ñuy sàkk dañ naan mbooloo diw wala mbooloo sangam wala nangam nga xam ne kenn daal moo ciy am solo mooy chef bi waaye li ci des lépp mbooloo rek lay tudd ak lu ñu bari bari ak euh, lu seeni wërsëg wuute wuute itam chef bi dina fexe ba nangu alali boroom alal yi euh, ba ñëpp néew doole ba nga xam ne doole daal moom rek moo koy am euh, nga xam ne nag day mel ni kon dafa am lu màbb dafa am société boo xam ne moo moo moom lañ fi tegoon mu nekk fi en place mu màbb màbb gi màbb nag Euh, moo indi ci xelu nit ñi ak seen psychologie yi niti niti maas yi am Europe léegi nga xam ne euh, daanaka li ci ëpp mbooloo mu ñuy manipuler moo xam ne dañuy jékki-jékki rek soobu ci mbir wala génn ci mbir wala gisandoo menn mbir rek te duñu xam sax la ko waral duñ ko gëstu duñu toppatoo lu nekk ci ginnaaw mbooloo yooyu ci la juddoo muy maas yi rek bu ñu waxatee maas bu ñu waxee mbooloo rek loolu moo ko indi nga xam ne nit ki amatul xalaatu boppam wala gis-gisu boppam euh, ba mën a am nu mu kiyee ñooñu itam duñu duñu duñu xalaat ni doxin wi ñuy dox muy doxinu mbooloo mu bari rek di wéy te xamuñu sax dëgg-dëgg ci li ñuy dox Euh, ñu àtte seen bopp xoolaat seen bopp ba xam waaw ñun nii ñu def rek mel ni ay géttu xar wala ay géttu nag mel ni duñu xalaat kenn rek di ñu xalaatal di ñu imposer gis-gisam wala yu demee noonu ñu àtte ci seen bopp ba xam ne ñoom kat loolu échec la ci ñoom ndax doomu aadama bu xalaatatul bu xalaatam dañee ci moom te ñaare ña ko jiite ci wàllu xalaat doxal ñun doxalin wa ñuy doxal am na ci ñu mu metti lool loolu day jaadu am ci biir ñoo xam ne dinañu war a wuuteeg moom xalaat ñu war a mën a soppi lu bari ak am gis-gis yu wuute euh, jamante ci ba ñu xam fan la dëgg féete loolu nag euh, maanaam amertume la amertume parce que ñaare ci ñi nga xam ne idéologie totalitaire bi dina ci dina ci juddu màgg ci ba ñu appliquer ko dañuy jóge ci ay milieux yoo xam ne yu défavorisé la lool lool lool ba nga xam ne maanaam naqar yooyu ak métit yooyu euh, dañ koy màggaale judduwaale ko yaruwaale ko loolu dañ koy ëmb day mel ni dafa am ñu ñu mere euh, am loo xam ne dañ koo bëgg a faj day mel ni léeg-léeg revanche lay nekk ci ci société boo xam ne xëy na niñ jàpp ne moom noonu la leen traité dëppoowul ak na nga xam noonu lañ jàppoon ne noonu la leen war a traité dëgg-dëgg moo tax euh, <coughs> mbooloo yi euh, lu ci ëpp léeg-léeg loolu daf ci nekk jafe-jafe mooy ki jiite euh, te yor xalaat yu violent yooyu dafay am problème ak société bi waaye ñi nga xam ne ñoom daf dañ ci gis seen bopp it ñi ci ëpp noonu la ñuy mel noonu la ñuy gisee su ko defee nag euh, violence boobu day nekk violence boo xam ne ñi koy exercer ñoom du ñu xam sax ne euh, violence la pour ñoom lu normal la politique bu ñu war a appliquer la doxalin wu ñu war a imposer nit ñi la gis-gis wu ñu war a teg ci kaw nit ñi la ngir ñoom ci seen bopp nit ñooñu nga xam ne teg nañu leen ko ëllëg ñu mën cee gis seen bopp gis seen njariñ gis ne lii kat mooy bunt bi nga xam ne ci lañu war a mën a jaar ba génn ci problème yi nga xam ne ci lañu nekk te loolu euh, ñaari li ci ëpp ay catastrophe rek lay indi loolu euh, gis nañu yu ci bari yi nga xam ne jot na fee am euh, catastrophe yi nga xam ne moom la moom lu jur loolu moom la ñuy defandi Euh, nga xam ne waxtaan wu gàtt lay doon ndax xat-xatu jamono bi fi mu toll euh, bu ko defee dinañ ñëwaat itam ci yeneen fànn yi maanaam bu dee ci wàllu recrutement yi nga xam ne moom lañ daan def ñi daan doxal mbir mi euh, ci yan anam la ñuy sukkandiku ba jël leen boole leen ci ba ñu mën a taxaw taxawaay boobu ak fan la xalaat boobu toll léegi ak objectif bi rek mooy fi ne nii totalitarisme bi nga xam ne moo am wala mooy waaj a am bu numérique bi euh, ñu mën a fexe ba développé ko ñu ngi leen di baalu àq bu baax di leen sant di leen gërëm salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu. si biir mën a jot moo leen vidéo boo xam ngir mën a xam